maa ngi leen di nuyu bu di leen siyaare euh, no ngeen def man a Cheikh Abdou nugum, Nougoum moo sel seen mbokkum taalibe mais ñi yéex nañ de ba léegi ñëwagum 5000 ak 10 000 bu len ni ñi waay nit ñi di xaar sëñ Touba war naa woote ngeen mujj ñëw yéen màggal gii sëñ bi fu ngeen newoon ba 1000 francs jiitu leen fi téeméer ñëw na démb juróom fukk ñëw barki démb yéen yéen a war a régler dernière minute yi ñëw leen fu ngeen ne nit ñi dañ leen a soxla bàyyi leen bu leen nit ñi soxlaa ngeen wër di di nugum nugum kenn ku ne kolu soof ngeen trop waay 5000 ak 10 5000 waxal ak sa mbokkum taalibe 10 000 ne ko mu nugum nugum te ñëw sëñ Alaaji ñi lay tubarkal <laughs> damay soññe walaay waaw 10000 ñew leen ngir yalla yeen tam dañ leen soxla sëñ Touba warna wote ngeen ngeen di patienté wu ñak ngeen jom torop témer warna leen fay jiitu ñewul leen ci magal sëñ Touba gi bu ngeen ñew ci magal gi yamal xiyam bu ngeen dajje ak seen moromi 10000 yi ñëwoon daaw da ngeen rus de yeen lay waxal bu ngeen ñewul bu ngeen manam bu ñame yamal xiyam da ngeen rus de amna na seen moromi 10000 yu daan téla ñew ren ngeen yeex lool lool sëñ bi kenn mën leen gis xamu fu ngeen ne nit ñi dañ leen soxla 5000 ak 10000 jaaxal nañ ñuy nugum nugum ne ci àll bi kenn ku ne di wane ne man couleur bi ma yor dafa rafet ah murid murid li nga tey bari na de ay sama waaj li ma ci mën xam bu murid bor mhm. na nga fay murid yi ba màggal gi murid bu ci yoreel bor na la tijaan bi muñal ba gi ñëw murid yi yoreel bor tijaan yi na tijaan yi muñ ba ga murid bu tijaan bu murid bor na ko fay màggal di jàll ndax danoo soxla xaay ba murid yi nga ngeen invité tijaan yi ci màggal gi benn tijaan yi xotti ay feddali kóllëre El Hadj Malick ak Sëñ Tuubaa Bamba ak Maodo benn la ku leen di féewale yow rek yaa sikk xaalis bi nag ay bor yu ma fay maa ngi lancé ñëpp message am na ku ma yor 7500 na ñëw ndax 7500 mën naa jënd saako soble dimbal leen di ngeen fay murid yi bari soxla nañ ko safar gi ci lañ ne Bamba woote ku tukki woon juróom-ñaari at juróom-ñaari yoon ci tegaluñ ko ci tibbul tëddul te moo ngi noonu moo ngi noonu ñoo ko déggandoo ndigal li nag mooy jigéen guy ñëw ci màggalu Tuubaa bu fi nekk di sol yére yu góor ak di soli caay na góor ñi concentré wu ci Seex Ibra wu ci soxna jaara soxna jaara lañ leen royloo kii nag moom ren nugum nugumewu fi màggal gi lii ko ci sol danañ lay yóbbu njaaree mbaanu bàcc sa daqaar